Fall si loolu idi maa ngi lay bu baax séeréer bu naar wala séeréer bu xees moo si wax rek ceeb bu mag bi waaw aussi waa di wax gannaaw sant yàlla ju si yoon bi sant ñaar waajur di sant waa Pikine di sant waa Medina waa Diourbel xojil ñëpp maa leen di bëgg bu baax a baax waaw so comme coow li bari woon bee baala jot na avance jotul avance ba tey ñu nga sol blouson waaw waaw promoteur bi wax dëgg yàlla daa bëgg combat bi ñun tamit ñu bëgg combat bi parce que ñun bëre lañ fi nekkal waaw ku njëkk a pare rek moom la ñuy bëreel quoi. waaw yàlla dogal nag ñu jiboo nan xam nga waaw moo tax ñu ñëw remplir suñu contrat nii waaw. est-ce que xale bi nga jël. waaw xale bi ma xam naa ko ndaanaan la champion la waaw. ku yit a neex a jàngal tubli daa mën a bëre moo tax ñu jël ko. ay mbërëntaan. waaw looloo neexal combat bi nag waaye di ñaan yàlla fi ma daan jaarale ma romam jaarale ko fa rek. nga xeex pourquoi pas man damay xeex damay bëre te moom mu neex ko dina xeex mu naqari ko dina xeex na waaj ñaar yooyu yëpp teg so waaw luy xeex xeex bëre bëre dina leer billaay walaay <laughs> yàgg na Petit Niang nuyu naa la maa fay sant yàlla alhamdulilah naka tey tey ngi nii bu baax maag mulam waaw ana ñu sa gisuma ko de. daa daw daa daw tapet la. waaye bu jour ba di daw de. avant muy jël xamu woon maay kan mais moom xamee instant nii bëgg na see génne mais da koy ah. lu ko dugal si man génne ko si man. loo ko ñëw loo ko yóbbante. lu ma koy yóbbante bëri na. na entraîné na jàng xeex bu baax a baax a xam naa ne mënul xeex. na jàng xeex bu baax a baax xam naa ne mënul xeex. bëre bu bëre moom mënu koo jàng ba sonal ma na jàng xeex bu baax buggee ñu xeex mu xam naa ne mënuñoo bëre mu neex parce que ma benn du ñaar seen si li nga bëri si diggante ak Kobra nga ñëw bëri bu raw waaw mun naa ne ndaanaan xamaguñ leen ba tey waxoon naa la ko danaa la ko waxaat làmb waa buuna ko moom te man dama koy confirmer bu soobee yàlla la 11 dama koy confirmer te ci dama koy confirmer mais du la 11 kese kii du moo taxumaa jóg yàlla xam na ne taxumaa jóg billaay wallaay taalaay. ma ñëw buur ñu waxtaan amul benn problème. dañu bëgg la incha allah. yow am na ñëwee yow ni ma fekk bu soobee yàlla yow jaajëf. amal jàmm waa Bané 11 ma leen di nuyu bu baax di nuyu seen champion yi nga xamante ne bi ñoom lañ dëggal ko en commençant Mama Lamine le grand champion fils de Aldo Ndiasse yoole yoole Papa Sita euh, ak xulle booy di encouragé garmi di ko ñaanal bu amaatee combat yàlla mooy ko ndam di encouragé Baye Zal di ko ñaanal bu amaatee combat yàlla la ko waajee. lu ne yàng la ak lu ne ak combat bi danaan yàng rek mën a yomb. danaan bu newul yàng. bu nee teg mën a dégg. si Boy Seye 2 nu mu daan ñëwee. Boy Seye bu ës bu dof bi. bu si combat bi. combat waa jaxaay la. waa 11B baale 11 ñoo moom combat bi. seen dugg Boy Seye ak Super Diagne sama jàkk. wala yow doo dégg. bu dof bi bu bu bopp bi doon wàcc fii moom la ñuy gis lool février wala mu gis sax ku gën a ku ko gën a feebar ku ko gën a man bandi mais dama xamal benn affaire maa ngi maire Dieynaba Ndiaye responsable politique la nekk Kër Massar di dimbale ñëpp maire Dieynaba Ndiaye Djily Mbacké responsable politique APR nekk Darou Moussi di jàppale jeunesse bi sëñ Djily Mbacké maa lay woo si bés bi

fu ma jógee waaw di ko sant moom moo ma jël ko waaw di ko sant di ko ñaanal yàlla wér gu yaram ba suuru làmb ji yàlla may di nuyu sama mbokk Pël Fuuta fo iɗon hiwrade oɗon fof kala ko ɓiɗɗo pullo Fuuta woni ɗan suujina hiwrade o toronoɗo lam ɓiɗɗo mon on billahi wallahi mi kono meeɓi billahi eyi koto mamoudou e koto jogo mi weltike sanɗiñeeri ɗo fof ɓe yalto wawi guine popoɗora kundara kala ko ɓiɗɗo pullo Fuuta woni are e nuraɗo di nuyu tamit sama mbokk séeréer yëpp képp ku may ñaanal rek maa lay nuyu ku si mel ni Simal waa Simal Père Guirane xam maa ngi nuyu ñëpp waaw waa Foundiougne waaw waa waa Jaxaaw Siin Père bu Kama eh, maa leen di nuyu bu baax di nuyu sama benn kilifa bu mag mooy Touba waaw bon bëggul ma tudd turam mais taaliba sëñ Fallou la maa di nuyu képp koo mu may jàppale rek maa lay sant di la gërëm di nuyu sama grand bas képp koo xamante ne yaay sonn si man ah maa lay nuyu gis naa nuñ ma jàppalee bu ma génnee ba léegi di sant sama yaay bu baax di sant sama yaay di sant sama waa kër waa Tiwaan Pël sama ñoom nijaay maa leen di sant bu baax di nuyu nag fu ma jugee waaw muy 100 mètres waaw Kaaw dañu war a jug si kawam quoi ndax lii yoon barki maam Seera Fall waaw warul des foofu ba heure bi gaan doomu sénégalais am na lu am na lu mu def si làmb nañ ko fay si loolu si meeram gaa nañu xool si meeram war na Serigne Touba ak waa Sébi sama booy ñoom Bouye ñoom Guy gi fu ma nekkoon 49 xam nga ñoom Cheikh maa leen di nuyu waa Campenal ñëpp képp ku am nattu rek maa lay ñaanal yàlla nga caabi xam nga féetee la ginnaaw gaan nga génn ndax ay doomu góor ñoo fa nekk parce que maam Seera Fall. mais looy dig say supporters le 11 février. waa di woo waa Medina ñuy jug bu baax. waa di woo autorité yi fa nekk gaan nañu jàppale. ku si mel ni Cheikh Ba Bamba Fall Messi Bamba Fall yow lañ tuddee lamb ji te doomu Medina moo war a bëre gaan bo boo billaa wallaay retour la warul yomb jàppale leen ma gaan waa Medina ñëpp waaw képp waa Derkele Cité Mareng waa waa Liberté ñoom Amath gaan génn leen gaan sama boy bi fa bambara gaan génn leen mais laam gaan waruma ñàkk dara barki ma da ngaa tàng tàng tey suma sa sañoon tey laa war a bëre gaan woon sénégalais am na lu ma am na wax baaxul quoi eh, yàlla baax na. daam lu bëgg a wane xanaa yàggatul. daam lu bëgg wane. waaw les onze yàggatul incha allah jaratul wax ju bëri di santaaj sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax jabootu sëñ Fallou baax waaw di nuyu sama grand Aba Thian Idi maa lay bëggee bu baax combat bi sa combat la di nuyu promoteur bi Père Assane waaw. waaw di nuyu waa Pikine waa Redis gaan sama papa Abdou Salam dañoo sonn si man ñoom Pikine ñoom Abdou ñoom Pokola gaan maa leen bëggee bu baax waaw xam maa ngi nuyu waa France ñoom Madou Mamour waaw ak ñoom Mbacke ñoom Simer gaan yee billaahi Mbacke képp sama am fu mu def Babacar bu ma génnee ba léegi gaan manqué wu ma dara kon instant waratuma caaxaan sama avenir quoi barki maam Serap Fall billaahi wallaahi waratuma caaxaan dara. su la déggee sa carrière da nga koo bëgg a téye léegi amee teg ko ci yoon. te léegi daf ma a dimbali gaan gën a xamaat man maay kan xam sénégalais yi fuñ ma teg. ku la. yow laay de. <laughs> yow laay la. waaw coow li c'est normal nag. ñoom mosu ñoo bëre ku mel ne Gackou 2 moo tax. mënut a bëre ku mel ne. ñi ma bëreel Bébé Diène ëpp leen ëpp leen coow. ëpp leen coow ñi ma bëreel ñëpp ma bëreel ñëpp Bébé Dièye ëpp leen coono làmb. ñu ne war ko woon jël ñu ne war na xaa jël. ko woon jël waruma ko waroon naa ko jël weesu na jël naa ko suñu combat mu ñëw. ci indi la mu indi woon diggante ma Boy Dakar. waaw lu ko raw la ñuy indi incha allah waaw. si xeex si bëree si lépp waaw. dama ko laaj mu ne ma waa combat bi yëpp Gackou 2 wax la si am. waaw moom kay moom may wax moom may wax TikTok yi moo nekk si TikTok yi moo nekk si Facebook moo nekk Instagram mi ngi wax rek li muy wax yëpp maa ngi koy maa ngi koy dégg man maa ngi sama ruq di entraîné toog jàpp sama ñaamur moom moo fee wax ji de est-ce que du moom moo ciy am wax rek moom wax rek moom moom moo ciy am wax rek wax rek la jàpp moom li wax rek bu jour ba Assane Ndiaye Assane Ndiaye li ma koy wax mooy moom li mu war a def yëpp na ko def rek ñun ñun dinañ def suñ li ñu war a def maa ngi woo waa Guédiawaye di woo waa Pikine di woo waa waa waa waa Kajoor gi yëpp di woo waa Kébémer jokkul sama dëkk jokkul jëwriñ di woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñiy jàppale Gàkku waa Xinaan 3 si la Barak marché bees marché Ndiarème marché Sam xam nga marché maanaam fiñ mi Guédiawaye gi yëpp maa leen woow maa ngi leen woow bu baax mobilisation bi nañ ñëw arène nationale fii suñu arène nationale la ñun buñ fi bëree dafa war rafet dafa war a fees dell nañ ñëw mobilisation bi gën a naaj xam nga loolu laay loolu laa lay kii di di gërëm sama gars yi ma àndal nii maa leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax dañoo xaw a xaw a tax bu ma lemee damay jum xam nga tey bu Serif Serif an Baye Jibi bu ma leen waxee rek wax naa gars yëpp xam nga maa ngi leen di gërëm ñu ngi sonn si combat bi bu baax a baax a baax gis naa gis naa ni ñuy taxawoo maa ngi woo ñëpp Pam Mama maa ngi lay woo Omar Bass maa ngi lay woo di woo Aliou Sall di woo Malick Gakou sama turandoo di woo Lat Diop di woo Amina Aidara maire Guédiawaye maa ngi woo maa ngi woo maa ngi woo autorité Guédiawaye gi yëpp yëpp yëpp yëpp liiru waaw liiru monument Guédiawaye kooku sunu grand la sunu xarit la sunu lépp kooku day sonn si combat mi ngi lay bëgg a doo dafa yaa nga